guddi gi di guddeeg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam fu mu ko masaa fekk rek daana ko màggale màggal goo xamante ne bi dina kawe njottul lool mu di ko dundal ba tey jii ñu di ko dundal ah, mu mel ni nag moom li gone yi nga xam ne ñoo wàcc sànq li ñu tari sànq ci alxuraanu karim dafa mel ni Serigne Touba Xaadim Rasul da koy indiwaat si guddi gàmm ndax fii mi ngi fi wax kitaabu rabbi kaani li kunt kuntu lahu wa lillaahi bihi sàkkantu moom nga xam ni sëriñ daam abdourahman loo mas naa ñëw ci sëriñ bi sëriñ tuubaa xaala law maxtaar loo fekk ko mu teg ak romañaan ak romañaan nag buñ ko waxee mooy ak basan basan gi tax yooyu ñu daan def di teg ay kaamil di sotti rek kayit yi naa ko Abdourahman alxuraan dama teral ba ma xam ko lool xawma nu ma koy fayee kon bu déggee loolu dafay mel ni guddi gi kon buñ ko dundalee dundi yu gën mooy alxuraanu karim ndaxte ba muy bindi baytam yi di ko tagg ak di ko wax ci kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillaahi bihi sàkkantu di dénk suñu abdourahman loo ndénkaanem yu màgg yooyu ndax xam na alxuraan fi mu nekkoon ak moom fi mu tegoon alxuraan ak lan mooy alxuraan ndax suñu abdourahman nee na bi mu ko fekkee mi ngi sotti kaamil yi rek ci basan boobu di ko wër rek di ko tagg naan ko abdourahman alxuraan dama teral ba ma xam ko lool xaw ma nu ma koy fayee kon loolu buñ si tekkee li fi jaar sànq dafay mel ni guddi gi sunna si ak maqaam yi yëpp day tënku ci alxuraan waaye kon bu nee la fii si njujuf njuum dundal nañ guddi gi si dundin wi nga xam te ne bii jàng nañ lu toll si juróom-ñeenti kaamil te yaakaar naa ne ñaari kaamil mi ngi dawaat day nekkoon kon fukki kaamil ak benn si dundal guddeeg Seydina Muhammad alayhi salaatu ndax guddi gi li si jiitu mooy sant sunu boroom waaye sant it Seydina Muhammad sangub sang yi si jàng alxuraan walla bernde walla lu mel ni loo saraxe muy alal sa alal ju mën a doon ah saraxe nag buñ ko waxee tekkiwul ne maa ngi joxe waaye damaa joxe rek ngir yàlla ngir jëm yàlla ji waaye guddi gi suñ boroom dasee kennal kenn muy Seydina Mohamed kon mu gënal ko ci mboolem li mbind ba tax moom sunu boroom subhaanahu wa taala muy wax ne Seydina Mohamed mboolem li bind yaa ma ci gënal comme moo ko ci nag guddeem gii lu ci waay mën a def lu ne mu tuut walla mu bari dañuy wax ne bu mu bari it ba nga naw ko waaye bu mu tuut ba nga xeeb ko ndax guddi la goo xam ne genn guddi rekk ci guddi boroom xam-xam yu mag yi niñ ko waxe guddi gi jar naa fanaanee dox ba bët set walla ngay dox ba foo mën a yem rek nga yem fa waaye doon na guddi goo xam ne dañ koy tëdd di nelaw am na itam ku ñuy wax sëriñ Tuubaa xaadalaahu maxtaaraloo ak alxuraan da koo laaj loo bëgg mu ne ko xaalis ak ñépp xaalis ak ñépp nag mooy bi ko sëriñ Tuubaa laajee yow lan nga bëgg moom lim njëkk xalaat mooy naa am xaalis ak ñépp kon naa am xaalis ak àddina sëriñ Tuuba ne ko boo boo nangoo jàng alxuraan de danga am lépp kon loolu ba léegi day ñëwaat si li ma wax sànq rek ci alxuraan si ndaw ñi ndax ki nga xam ne tey jii dem na si wasilaam mu ñaanal ko loo bëgg tax ku nekk xam na si ñun ne sëriñ Tuuba xaadim rasul bu ñaanee yàlla sun boroom suñ borom may ko ak ñaanam kon ki nga xam ne moo dem ba ci moom di ko ñaanlu lam doon ñaanlu moom mbir na ne lii mu ko ñaan sun borom da koy defal ndaxte ànd na ak ko yàlla rus muy sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul mais bëgg-bëggam mooy na am xaalis ak ñëpp ak ñëpp nag mooy àddina sëriñ Tuubaa xool na xool ci bunt yi nga xam ne fi la war a jaar pour loolu am mu ne ko nanga nangoo jàng alxuraan kon mbokk yi dafay mel ni kon alxuraan si la lépp nekk wala it muy wanewaat ne muy dëggalaat ne alxuraan mooy lépp mu ne ko soo bëggee am loolu nanga jàng alxuraan sëriñ Tuubaa xaalaxu loxo nee na bi nga xamee ne benn bis mas naa woo sëriñ ci jànkati xasida yi na leen dama bëgg ngeen jàng xasida yi tuwaasilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwati wallahu abxa kama axna sëriñ tubaa xaala lahu loxo mas naa woo sëriñ masamba ak sëriñ fallu ak sëriñ moor faali jeng sëriñ moor faali busu ne leen ma li ngeen am ci ay xasida ba ñu ko andee mu daldi teg romañaan nga mooy basang basangam boobu ku nekk teg ca la nga am ci ay xasida ba romañaan nga toog sëriñ bi na leen damaa bëgg a dénkaa damaa wax ak yéen ci xasida yi ndax dama bëgg a tukki tukk damaa du bëgg dugg xul wa te danaa fa am ab diir yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam daa ñëw fii ne ma yàlla moo yónnee ci yow te nee na diggante def ak dindi nekkatul ci yow kon na ko def ci sa xasida yi mu daal dina leen indi leen ma li ngeen am ci ay xasida ñu indil ko mu ne leen yi ngeen mokkal ak yi ngeen mokkalul yépp indi leen ma ko bi nga xamee ne indil nañ ko ko ñoom ndaxte comme yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam feeñoo na ko na ko sunu borom kat dama yónni si yow dafa ne dafa bëgg dëkkaale ak yow waaye def ak dindi moom nekkatul ci say loxo kon nag ko def si xasida yi doog a ñëw kon foofu liñ fay jàngale waat mooy xasiday Sëriñ Tuubaa yi ndeke mooy deyaare ak sunu boroom te bu nu dégloo si waxtaanu Sëriñ Abdou Samad mu son son mi ngi wax ne xaside yi dafa mel ni laax bu tàng buñ teg si mbanam muy bax ku nekk ci ñu nag ak na ngay tibbe mu tegaat yi itam ne xaside yi nga xam ne amul xasida Sëriñ Tuubaa boo xamante ne bi du faj day faj bu mën a doon ak ajo joo ko mën a gis ne ñoom bi nga xamee ne def na loolu ba indi ko Serigne Touba ne leen dénkaane xaside yi mi leen di dénk de mooy xaside yi de ànd ak yéen ba ëllëg nekk seen ab jaam ci seen kanam bu ngeen nekkee ci biir bàmmeel mu di leen wéttali bu leen malaaka yi di laajit mu tontu leen ba ëllëg sunu boroom ba saari taxaw mu ànd ak yéen ñëw layal leen seenu lay ànd ak yéen ba biir aljana kon foofu ku ne xam na ne xasida yi moom défense la boo xamante ne bi si jullit yi du mën a sax murit yi waaye si jullit boo xamante ne bii rek gëm na li nga xam ne moom la wax ab défense la si yow bu màgg a màgg mu mel ni kon xasida lu ñu war a fonk lool te di ko bàyyi xel itam si jàng mi nga koy jàng ndax benn jour mas na koy jàngaloo mag ñi sin ma sàmba ñoom ñu di ko jàng ba mu yàgg am ndaw lu ñëw ci sin ma sàmba di ko déy sëriñ Tuubaa ne ma sàmba taxaw leen ñu daa taxaw mu ne ma sàmba bàyyi leen ñuy jàng xasida yi ngeen si dugal seeni wax ndax malaaka yi nga xam ne ñoo wàcc ñoo koy déglu bu wàccan si suuf kenn nag defar aw fepp suuf si dina jeex tàkk te ñoom duñ jeex te ñoom kat bëgguñoo dégg jeneen wax ju dul wax ju dul xaside yi wala képp koo xam ne ñu ngi koy jàng tamit ngay dugal say wax dinañ la dinañ la fàdd te yaa nga jëm sawara nga jëm kon foofu li ñu fi jàngale mooy xaside moom bu ñu koy jàng dañ ko war di diglu ak xel ak xelaat di ko bàyyi xel bu baax a baax comme ni ñuy santaane kuy teewlu ci alxuraan waaye itam noonu lan teew santaane itam bu di jàng xasida yi ku koy teewlu ndax bi ndaw loolu ñëwee di wax ak sëñ Masamba sëriñ tubaab bi mu koy arrêté bi mu leen di daggaloo njàng mi di wax ak moom di leen leeralal lool ne leen malaaka yi nga xam ne ñooy déglu xasida yi fu ñu koy jàngee malaaka yooyu bu ñu wàccoon ci kaw suuf ku nekk di for aw fépp fépp suuf yi dina jeex tàkk te malaaka yooyu duñ jeex kon sëñ bi bu ñu déggee foofu kon malaaka yi nga xam ne ñooy déglu xasida yi kon nan nan toll yow léegi kon ñoom ñi yëkkati xasida yow nga di duggal say waxi bopp li la ñor rek ngay wax bàyyi woo xel kon yow fi nga nekk bàyyi woo xel ñu koy déglu bàyyi woo xel ñi ànd ak yow te gisoo leen kooku day wane kon xasida dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax bu nu jàngatee sëriñ Thierno Diouf Lambaye mi nga xam ne tey mooy suñu yaakaari tey ëllëg mas naa wax ni ñuy jàng xasida da ngay wax de bu ma ko doon misaal day mel ni naaj wu tàng jër diggante deux heures ak trois heures nga jël sa doom juy raam teg ko sa digg naaj wa muy teg loxo yi di cokkastiku di teg tànk oom yi di cokkastiku ndax munu munu daw mu ne xasida yi bu ñu koy jàng noonu lay mel si ki nga xam te ne bii dañuy jàng xasidaam yi xasida yi muy wax jeneen wax ju bokkut ak xasida yi kon xasida di loo xamante ne bi loolu war a bàyyi xel lool mu ñëwaat di waxaat fii tamit ne waxe sëriñ Tuubaa ci gàmm rafaani ubbi ubbi laawali wa ramadaana ay ni arsiduwaali am na gàmm koo xam ne da doon taw ñépp dugg ci biir jumaayee njaareem ji ngir bañ a tooy sëriñ Tuubaa xaalaahu maxtaara loxo daal di wax ni yéene wax ni taw bi ku mu laal say bàkkaar set na xoolal loolu siñ bi kon ba léegi xaside dalee wan ne la màgg gi màgg ak fi mu toll si sun boroom jar na lu nekk ndax nee na Sëriñ Tuubaa moo togal boppam si njaareem yu gàmm comme bisu tey bii yàlla si di sotti ay xiiwal nit ñi bañ a tooy lañ wax daw di dugg ci biir jumaay njaareem ji nee na Serigne Touba daal di woote waat daal di ndox mi képp koo laal na la sa yoram set na wicc ci bàkkaar kon xanaa kon li Serigne Abdou Khader waxoon ne di xuus ci am ndox di julli ji de moom a ko gënal di xuus di ci sawara kon boo comparé ñaari wax yooyu dafay mel ni xaside moom fi ko sun borom teg dafa kawe lool. mu waxaat tamit ne xaside yi nga xam ne dañ koy jàng yéen ñi nga xam ne yéen a koy jàng di ko yëkkati mas naa woo ma sàmba ñoom ne leen Masamba mu ne ko mbàkk mu ne ko damaa bëgg a wax ak yéen Masamba sama xaside képp ku koy jàng na ngay xam ne alxuraan ngay jàng képp ku koy jàng itam Masamba nee ko na neex baat Masamba neel ki ñi jàng xaside itam bu ne itam mu sama araf yi nan koy jàng ni ma ko ni ma ko bindee. kon foofu yi ba léegi de indi war si jànkati xasida yi ne xasida moom dañoo war di xool bu baax li ñuy jàng lan la ak li ñuy jàng lan la ak ki ko bind mooy kan ak lim ko binde mooy lan ak nim ko bëggee ñu jànge ko noonu mu wax ne képp koo xam tamit da see nekk sax ba naqari baat baatam naqari na ngeen ko ko wax mu bax su munta ban na ngeen ko wicci wiccal na leen koy jaral maanaam na leen ko forcer si bag yi kon xaside yi doon na loo xamante ni bii buñ ko doon misaal si aw neexit si lu ñu tàqamte ko dañ naan wax naan mën nañ ne lem la lem nag boo sëppee jox gone da yaakaar ne sëppaat rek moo cay war waaye ndax mu war na saa naan lu bari kon ñu gën amaat pas-pas ci xasida yi waaye itam ñu gën a farluwaat ci xasida yi waaye ñu gën a farluwaat tamit ci diine ndax amul lenn loo xam bi dina ko soññaane te jiitalul diine ba xam ne diine moom mooy li njëkk te mooy li mujj kon bu ko defee ñu xam ne sëriñ bi moom li mu war a li mu war a leeral lépp da koo leeral waaye it li mu war a dénkaane yëpp dénkaane na ko ba mu mat kon li nga xam ne moo ci des mooy jëfe jëfe nag dafay nekk ci ñaari ponk mooy nga nangu lii xam ne lu la digal la walla farata ci yow nga taxaw ko wala it nga bañ xam ne lii farata ci yow it nga bañ ko ñaar yëpp mën naa nekk waaye li mu mën a wér te wóor mooy si Sëriñ Tubaa moom ni nga xam ne moom la ko Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke firee wala ni mu xam ne moom la ko partagé ak nit ñi ban gën ko xam si lu leer si Abdou Lahad nee na fu la neex mën ngaa aw lu la neex mën ngaa bokk waaye bépp niiw boo xam ne teg nañ ko si jaag jëma moom si buntu bàmmeel loo ko mën a wax lu dul sëriñ tubaay sa sëriñ bu fekkoon ne tey mën naa jóg yor jaasi wala yàpp dana jóg yor ko jëflanteeg yow kon liñ nekk lan la li nekk dafa nekk dimension boo xamante ni bi wëruñu koo caaxaane si lenn ndax gàmmu mas na koo fekk jamono yi nga xam ne moom nañ ko téye moom la ko tubaab bi téye fekk na ko sëñ Masamba ñoom ak mag ñi ñoom ñëpp def seen délégation dem si commandant ne dañ koy ñaanal intervention pour mu ñëw gàmm buñ gàmmoo bu bësetee mu ñëw delluwaat mais leneen leen si commandant ba tegal mooy moom kat mën naa ko ko may waaye moom mooy kii ñëw bu ñëwalee boppam ñaan ma may ko ko waaye du yéen laa koy may bi nga xamee ne wax na leen lool mag ñi daal ne sàmba comme yow sëñ bi yaakaar nañ ne sëñ bi moom ruus na la demal ci moom boo demee si moom àggee ko ko xañ na dina nangu li ñu tubaab bi sant tey bëgg nañ mu ñëw gàmmoo ak ñun bi nga xamee ne dem na itam seen sàmba dem na ba ci moom daal di toog mu ne ko ma sàmba lu xew seen sàmba daal di sëgg mu ne ko ma Masamba daanaka dara jëru wax ndax la ngeen la leen yóbbu woon sa tubaab ba yépp xam naa ko waaye Masamba dama la ci bëgg dénk ñaar tubaab bi amut ak may amut lu muy may duma ko ñaan dara gàmmu gii ngeen bëgg itam ma ànd ko ak yéen bu neexee yàlla mën na maa bañ a ñëw ci yéen waaye lii wéttu wër mooy fu gàmmu jote dinaa gàmmu guddeeg na bi Masamba it ñëwaat ci mag ngi ñi daal leen du bañ na ñu ne ko béttu ñun ndax xamoon nañ ne boo demee du lu muy nungu waaye danoo yaakaaroon na am rus na rus gi nga xam ne am na ko ci diggante yow dina la ko may mais bi guddi gàmmu jotee. tubaab bi li nga xam ne moom la gënoon a bañ si boppam moom la Sëñ tubaa def ndax fi mu ko téye moom fi mu ko téye moom tubaab bi ba jàpp ne moom moo moom foofu fii la Sëñ tubaa di yëkkati ay béytam di yëkkati jës boobu mu xàddamaat ba bët set bi bët setee ma seen Masamba ñëwaat ci moom na ko waaw Ahmadou nan nga gàmmo mu ne ko lim ba ñëw na dégg laay dugal si ay noppam. lim bañoon ne du fi amit moom laa amale si biir fi mu yaakaar ne moom moom fi ñu ko jaay ne moom moo ko moom foofu laa ko defee kon gàmmu jaraloon na ko bakkanam moom waaye siñ bi gàmmu doo jàpp ne lekk ak naan rekk mooy gàmmu déedéet ndax ku ne dañuy màggal guddeeg Seydina Mohamed nga ñëw lekk ak naan mënul ñàkk ndax bu du gàmmu sax di nga lekk di nga naan waaye danga ngaa bég ndax bég ba nga wég mooy da jël doomu jàmbor rendi jëfandikoo ngir ne mbégte mi nga am mbégte moomu nag dafa am lu koy darajaal li koy darajaal mooy dangay dem fan koy defe taxawu guddi gën koy taxawoo ña mën a jàng di jàng ña mën a ñaan di ñaan ña ko mënul sax si astaxfirullah waaye sëñ bi guddi gu toll ni guddi gi nga tëddi nelaw li ma siy gën a yéeme mooy da ngay jóge da da ngay dagg paas jóge ndakaaru wala feneen foo mën a nekk ne sama dëkk laay gàmmoo ji waaye yow ba nga nagee paas dem ba sa dëkk tëdd sa sablaal di nelaw ana gàmmu gàmmu oo kon yow da ngaa xamul li nekk si guddi gi wala yow da ngaa xamul li la guddi gi jaral wala li guddi gi jaral xeetu Seydina Mohamed bi ak Seydina Mohamed mi nga xam ne moom nga yaag mu si moom nga si aw xeetam nga bokk lim ko jaral ndax gàmmu dafa. jar na nga déplacé wu dagg paas la wax dem ba fu ñuy gàmmoo waa léegi yow bu njëkk mag ñi ni ñu ko daan defee di njaarim ak feneen ak feneen ak feneen si gox yi tey dëkk bi ñu dëkk tey di njuum gàmmu ay at ay ati at gàmmu ngi am waaye daaw ko gàmmu comme nii ñu koy gàmmoo daanaan feetu nag danaan rey ay nag togg ay togg reer waaye bu guddi jota ñenn ñenn ñoo ci daan dem mexey dafa gàmmoo ji ñeneen ñi tëdd di nelaw waa léegi loolu yàlla sun boroom di la di la di la tàggatal di la dimbali di la baaxe ba sa dëkk bi nga dëkk nag ñu def fa tànt bu mel nii taxaw fa guddi gu mel nii ne dañuy gàmm waaye ba léegi mënoo génn si buddu kër kon ndax yow loolu bu nekkan sa biir néeg sa biir seen biir kër sax doo génn bu nekkoon sa biir kër sax damay jàpp ne yow dooy kiy génn ndaxte ñun bi ñuy gën a doon aytu tànk guddi gàmmu daana jot ñu reer fii ba pare daw dem mexey nekk sa baas ba di daw ko dàqe rek ba bët set nda boobe xamuñu luy gàmm waaye comme tante bi am na njàng mi am na dañuy nekk ci tante bi di def jëf jëfinu gone waaye nag ba ñu yàlla gindee bañ xam lan mooy gàmm ñu ne nag kon dañ koy defee ñun si sunu dëkk léegi yow jarul laa génn sa kër ñëw ci tante bii ngir dundal guddi gi kon damay jàpp ne bu nekkan si biir kër sax doo génn si néeg waaye sëñ bi li si gën a yéeme nag déggatal wax ja la muy waxe waat moom bu demaatee bu delluwaatee bërëbu liggéeyam ak fu mën a liggéey moom bu delluwaatee waxam da koy dégluwaat bu baax a baax mooy waaye suñ gàmmu gaaka neex loolu la lay may moom suñ gàmmu gaaka neex suñu gàmmu gaaka neex te yow gàmmu ga yow su yaa ngi dégg rajo mais sa sa kër mënum amaana sax rajo dalay tàngal yow amaana sax rajo dalay tàngal léegi boo demaatee ba ba sa bërëbu liggéeyukaay naa ah, suñ gàmmu gaaka neex waaye wala nga ah du damaa ngaa dëkk ba yow kay neel da ngaa réeri woon da ngaa woon rek waaye gàmmu taxulaa jóg kon mu mel ni guddi gi moom xanaa ki xamut kay moo ñuy jaaxal ñuy wax waaye ki nga xam ne xam na dara dara dara dara si guddi ak Seydina Mohamed gii amatut ay nelaw te guddi la goo xamante lu si waay fas suñ boroom def ko ci sansa li si mun taxaa wax nag mooy suñ boroom dalay fajal nga gis si sanse na xam ne fajal na ma njaay sang nga gis si sanse xam ne fajal na ma nga xam ne siñ bi kat nga xam ne kat suñ boroom fajal na ma wala mu téel la ko ba ëllëg lim doon wax ne dafa am benn pulaaye ku am ku yoro loolu lekk ginaar yi dugg ca nee bi mu ci duggee rey ginaar yëpp moom it mu ne du ko ba daal ah, ab sàcc sax la dafa ñëw sàcc ginaar yi sàcc pulaay bi yëpp mu ne daal affaire moom du ko bàyyi noonu moom day dem si mu ne na dafa dafa ci gën a sax bàyyi naa ko ak yàlla bi mu ne ba naa ko ak yàlla nee na moom waa ji nga xam ne moo sàccoon pulaaye boobu suñ borom di def ay dunga ginaar si yaramu waa ji mais moom mi nga xam ne moom nan sàcc moom yëgut ne moom suñ borom mi ngi def loolu léegi nag toog na toog toog diggul kenn kenn ku ne am na problème wala ku ne daal sàcc ba feeña wala sàcc ba nangam moom nag mu xeb mu xeb fayek suñu borom googu ba ne man daal damay wuti si ma damay dem si maaman yi mu demee si sëriñ si sëriñ si nag si maaman yi ñu ne ko dinañ ko def nangam dina ko def nangam léegi nag suñu boroom daana ah kon nag naa seetaan ndax moom bi mbir mi amee mu ne ko bàyyi naa la ak yàlla man kat maa nga doon def samay mbir ndaxte jël naa donc ginaar di ko saxal si yaramu waaja waaye comme xool leneen naa ko bàyyi kooku ba xam kooku mën na si moom dara daal di dindiwaat dongo sa yaramu waaj ba mu set kon walla léegi waaj lekk na kon loolu mooy ñit ki mooy da ngay doyloo sa borom da xam ne suñ borom moom moo fi nekk suñ borom mooy suñu borom te kenn ku nekk si ñun suñu borom si ab laa den kenn ku nekk si ñun bu suñu suñu borom wéetoon yow si benn minute benn minute rek bu la ko bu la ko téyee. siñ bi yow ak saalit ma laa dikkal sa bopp doo nga day métti nga war a am ab paracetamol war koo naan amu fi bopp bi bopp bi toj yow moom diggante bi ak saalit duggal na jël lu nekk nga bëgg koo xalaat yow kon yow léegi da ngay génn yow da ngay génn cadre suñu borom ndax lu nekk xalaat nga ne daal lu nekk moom lii moo la teg bopp bi métti moom nangam la ko teg ak nangam ak nàngam kon ana suñu borom nañu wàkkirluwaat si yàlla. di jëlaat lépp lépp suñu boroom di ko tegaat su suñu kanam ndax ki nga xam te bi tey moo la sàkk moo la moom mooy dogal si moom lu ko neex kon lu mu dogal rek su ñun nañ ko nañ ko nungu tey nag lim dogal mooy bisub Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu wax ne Seydina Muhammad moo gën si mbooleem lu mu bind ñuy màggal guddeem kon. war nañ see sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaye dundal ko tamit si dund bi nga xam ne moom nañu ko santaane astaxfirullaa yomb na subhaanallaa yomb na laa ilaha illallah yomb na waaye si boo si mënu yooyu yëpp nag moom yow nekkal aji déglu déglu rek mooy li la war te déglu bu fekkee ne da ngaa teewlu di déglu yaag ñiy jàng yéen a yem moo xam jànkatab alxuraan bi la moo xam jànkatab xëcc dégg xëcc dégg la yow amal ak teew rek di ko déglu te xam na kat lii moom fi indi lii moo ma jaral kon mbokk yi danay ñaan si yàlla sunu borom subhaanahu wa taala guddi gi nga xam ne moom nañu taxawe yàlla nañu ko sunu borom fulal def ñu fekk ko ay ati ati at te at mu ñëw sunu borom defal ñu ko tawfiix defal ñu si lu kawe sunu jort si barkeb naa Muhammad mu mel ni li ma doon wax sànk rek dafay am ndax tey ñaari jëmm yi toog di ñaari siti Cheikh Ababacar Ndiaye Thiargane doon kenn si yoonu lislaam bi nga xam ne sëriñ Touba moo seexal seen maam muy Cheikh Ababacar Ndiaye Thiargane ku ne xam na ne Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane liggéeyal na yàlla waaye liggéeyal na sëñ sëriñ tubaa xaadim rasul ba mu fayee ko lim ko fayee di leen ko ñaanal njaay ngir yàgg suñu kanam loolu ñu yàgg si seen kanam ñu dëppoog seen ñaanuk maam gi dëppoogul mbooleem lu sëñ tubaa di fay ëllëg Cheikh Ababacar Ndiaye Thiargane ñu bokk ko ak moom si daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa ñu ngi siyaar bu baax a baax kon bu ko defee dañu continuer programme bi rek